jërëjëf mbokk yi ñuy topp seeni tënk discours bu njiital réew mi foofale euh, ci États-Unis d'Amérique ci euh, soixante-dix-neuvième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies moom njiital réew mi euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati discours bu ama am solo li lée ñu fas yéene ko faram-fàcce léegi nes ko waxee léegi dañu koy dooree ci ndorteelu ko discours bi ay poñ yu bari mu daal di addu jëmale moom njiital réew mi son excellence président Bassirou Diomaye Faye ànd ak loolu mu daal di dikkaat euh, gën a feddali njaalam ci euh, génnuk àddina ki nga xamante ni euh, denduk Afrique àddina gépp daal dinañu koy ràññ moom mi sax nga xamante ni mënees na wax ni moom mooy ki njëkk ko koo xamante ni daal dinay jiite banqaas gile di UNESCO moom Amadou Makhtar Mbow mi nga xamante ni daal dinay wuy ji boromam moom jiital réew mi président Bassirou Diomaye Faye ci kanamu ay naataangoom dal di gën a kàddoom ca kaw ak i jëf jëfam yu am solo euh, daal di koy euh, jaale ci kanamu àddina warngal euh, gépp ba tey moom jiital réew mi ci ay kàddoom ne gannaaw bi daal dinay gërëm kile nga xamante ni moom moo nekk jiital Nations Unies bu yees ak ka nga xamante ni moom la fa daal di wuutu moom jiital réew mi ci ay kàddoom mu dikkaat ci thème ba nga xamante ni moom la ñu doon waxtaane foofile muy bennoo ci àddina gi ci poñ ya nga xamante ni kon dañ cee daal di wuute ci gis-gis mbir mu ni mel naka lees di def ba mën ci benn moom jiital réew mi indi ci xalaatam ak gis-gisam yu am solo mu mel na ni sax ci thème boobile moom jiital réew mi dikkaat na ci li tax ñu daal di taxawal kuréel gi nga xamante ni ah, moom moo di Nations Unies yi nga xamante ni ay at yu baree bari yoo xamante ni ma nga ca gannaaw ne lees taxawaloon moom jiital réew mi dikk ci li waral ñu daal di taxawal nation Unies yi nga xamante ni ay at ca gannaaw lees ko taxawaloon ne li waral ñu daal di koy taxawal du lu mooy rek ngir lu ñu gën ñoŋalee àddina gi moom njiital réew mi ci ay kàddoom ne jamono jile ñi ngi ci àddina goog goo xamante ni dafa jaxasoo lool te Nations Unies nag lay principe yamoo daal di am ci àddina gi ñu daal di yemale ñëpp loolu lee moom mooy principe yu Nations Unies ndak loolu ñu daal di respecté yoon ñëpp daal di yem ci yoon kumba am ndey kumba amul ndey bañ am ci yoon waaye tamit ñu daal di respecté nit ñi seen i àq ak seen i yelleef kenn ku nekk ñu daal di respecté sa àq ak sa yelleef moom njiital réew mi xam le ni lu nu mel nag moom mooy charte yi tax ñu dal di taxawal kuréel gile euh, di nation euh, Unies waaye nag la mu gis ak jëfin yi jamono jilee wutee na lool ak la nga xamante ni moom moo tax ñu dal di taxawal euh, kuréel gilee valeurs yi nga xamante ni itam moom la ñu war di défendre dañu ko war a rek continuer di ko défendre nañu xool Gaza wala sax ñu xool Tal Abib nekkat nit ku nekk am nga sa dignité boo xamante ni ñu ngi koy salfaani kenn ku nekk am nga sa culture am nga sa euh, diine te ñun li ñu war mooy ñu daal di protéger euh, droit ku nekk ci euh, ñoo ñi lee résolution bi nga xamante ni moom la nation Unies xaatim ci mbir mu ni loolu li mooy la nga xamante ni moom lees war a doxal li nekk ci ay kàddoom ba tey moom jiital réew mi daal di xamle ni waaye waruñu baale violence yi nga xamante ni mi ngi répété wu maanaam ñu ngi koy def ak defaat ci ñenn ñi waaye nag charte yu nation Unies jamono ji li nees koy salfaañe mbir masuta am ci euh, àddina gi moo tax dañoo war a changer na nga xamante ni noonu lees di euh, doxalee ñu jël nit ñi boole leen ci agenda wu Nations euh, Unies ngir rek ñu daal di protéger ñëpp waaye gannaaw Gaza googile moom njiital réew mi président Bassirou Diomaye Faye itam ne duñu rek dal di tëj suñuy bët ci jëf yu doy waar yu ñaaw yi nga xamante ni mi ngi xew ci Sahel bi moom jiital réew mi président Bassirou Diomaye Faye kon ku dégg na muy waxee rek mooy lay xew ca Mali ak dëkk ya yoon ci gëmm seeni bët benn yoon jëf yi nga xamante ni gis nañu terroriste yi di ko def ca côté boo bi mu di ay jëf yu doy waar jëf yoo xamante ni ah, naka sudul ah, noonu la rey ay xale ki jigéen ci loolu loo xamante ni dara dara tegu wucci ci fenn mbir mu ni mel Nations Unies moom moo ci war a taxaw rawatina nag conseil de ah, sécurité bi ñu nangu Sahel nekk bërëbu tiyaatarukaay ngir réew yi nga xamante ni dañoo am doole jàmm ak daluk yi itam dafay feeñ rek ci daluk àddina gi ay kàddoom moom jiital réew mi ba tey mu daal di euh, xamle ni moom moo tax conseil de euh, sécurité bu nation Unies ñoom ñoo war a jël seeni matuwaay ngir rek euh, daal di saafara jafe-jafe yi nga xamante ni ma ngay am jamono jile. ba tey moom jiital réew mi rigalagul benn yoon ne day continuer di waxaat ni réewum Sénégal lay xew ca Palestine ci xolam la nekk ne réewum Sénégal day wéy di défendre réewum Palestine ne dëkk la boo xamante boppam ay génération yu mag. yoo xamante ni seen i dund lépp dañu ko dund ci nooteel Sénégal nekk comité bi nga xamante ni moom mooy saytu droits humains bu euh, peuple bu Palestine ne la mu bëgg rek moom mooy réewum Palestine dal di euh, moom euh, boppam ne ñu dal di arrêté xeex bi ci na mu gën a gaawee ca daar daar waaye tamit dañuy wéy di jàppal tànk réewum Palestine ba Jérusalem Est dal di nekk capitale bu Palestine nekk ci ay kàddoom moom jiital réew mi comme ni que euh, résolution bu euh, Nations Unies euh, xaatime woon waaye nag xeex boobile bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor ne itam ak taax yeeg ñëpp xeex bi bàyyiwu leen ne ma ngay def lu dara jarul droit international yi dañ ko war di joyantiwaat ci fépp foofu foo xamante ni dafa am conflit maanaam dafa am xeex ne droit yi dañ ko war di joyantiwaat ca barab yooyu le te mbir yooyu le nag ñi le di waa Nations Unies ñu ñoo war nekk ay médiateur ngir rek ñu daal Euh, am solution ci euh, mbir yooyu le moom jiital réew mi ne nekkul ni jàmm rek moom mooy guerre amul ne jàmm daal dinay am déedéet ne jàmm moom mooy nit ki daal di dund ci euh, fu bakkanam ne nit ki bu bëggee lekk wala sax mu bëgg def leneen wala mu bëgg jàng ne lépp lu mu bëgg def rekk mu daal di koy def ci ne mu ko bëggee loolu le moom mooy jàmm lu ëpp 750 millions yooyu yoo xamante ni ñi ngi dee ak xiif millions yooyu yoo xamante ni ñàkk gu mat sëkk mi ngi leen alawtiku dañoo a indi ay coppite yu mag ngir rek di am jëmale ci wàllu société économie waaye tamit ak environnemental nekk ci ay kàddoom ne daaneelagul ba tey di xamle ni il faut rek ñu daal di renforcer multilatéralisme pour jàmm daal di am loolu nag ci réforme urgente yi la euh, war a bokk ngir rek conseil de sécurité ak FMI ak banque euh, mondiale moom njiital réew mi di wax ni rek continent bu Afrique itam war naa gën a a am place yu gën a am euh, solo solo ci warab yi nga xamante ni dañu fay jëlee ay ndogal ci àddina gépp tamit faw rekk ñu dal di euh, ceytuwaat euh, maanaam ñàkk moom sa bopp ki ci wàllu koom loolu la itam faw rekk ñu dal di koy corriger nga xamante ni moom moo sax tere yennat ci ay dëkk ci Afrique rek moom seen euh, bopp waaye tamit il ñu dal di indi ay garantie ci changement climatique bi waaye sax changement climatique yooyu yile réew yi am doole yi ñoom ñooy responsable ci changement changement climatique bi nga xamante ne day am maanaam coppiku ko jaww ji nga xamante ni léeg ci ay yoo xamante ni dañu koy jëfandikoo ak xeetu gu ni loolu li bokk ci lee waral euh, jaww ji di amu ko coppiku moom jiital réew jàpp ni kon réew yu mag yi le ñoom ñooy euh, euh, ñoom ñooy responsable yi ci mbir mu ni mel. waaye tamit faaw rekk ñu dal di denc ci yenn natt ci ay réew yooyu yoo xamante ni réew yu am doole la di bëgg rek na nga xamante ni noonu la bëgg ñu koy doxalee ñi koy doxalee ci àddina gi loolu li itam faaw rek ñu dal di ci euh, de Sénégal depuis ba mu amee indépendance ba ni tey jile dafay wéy rek ngir ñu dal di euh, respecter euh, kenn ku nekk la mu gëm dignitéem waaye tamit loolu moom mooy indi jàmm ci diggante dëkk yi waaye tamit ci diggante waaso yi ak xeej yi loolu li moom mooy lay indi jàmm kenn ku nekk rekk ñu dal di rey respecteel nangul la ca la nga xamante ni moom nga gëm respecté wute gi nga xamante ni day am suñu ko diggante loolu moom mooy la nga xamante moom la ñëpp ñëpp euh, war a euh, jël ngir ñu am jàmm ci àddina wërngal képp moom njiital réew mi bokk ca la mu tëjee ay kàddoom ni bokkuñu faut daal di ànd nekk benn xeexandoo ngir rek développement àddina gi waaye tamit jàmm euh, daal di sax ci àddina gi dàkk moom njiital réew mi itam foofu ñawlu na bu baax na nga xamante ni noonu la réew yu mag yi di bëgg rek yeneen réew yi nga xamante ni amuñu doole di doxalee di leen imposer ci seeni bëgg-bëgg di doxale ñi nga xamante moom la ñu réew yu ndaw yi di leen ci topp mu mel ne xeetu ko noggatu goo xamante ni léeg réew yu mag yi dañu koy def moom jiital réew mi ñaaw ñaawlu loolu li daal di koy dénoncé foofale ca euh, nation Unies ci soixante dix session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies bi nga xamante ni doon nañu ko amal di ay kàddoom moom jiital réew mi président Bassirou Diomaye jaxaar fay jërëjëf mbokk yi doon topp nes di dikkaat ak yéen ci yeneen i xabaar waaye laata loolu way leen di abonné di liker di commenter di partager liy gën a neex mi ngi ci kanam jërë ngeen jëf mbokk yi